toute l'actu sur King FM. Katingai Bonjour et bienvenue à tous. Affaire du talibé attaqué à Pékin. Salih Oudouf, le propriétaire des chats, a été déféré au parquet. L'animal qui s'est sauvagement pris à l'enfant a été abattu en même temps qu'un autre pitbull, deux autres bergers allemands et deux autres chats appartenant à la même personne selon Libération. Pour rappel, le jeune talibé mordu par le pitbull est toujours en soins intensifs à l'hôpital lundi soir. Un camion à hauteur du pont situé à Poste-Tiaroy sur la route de Rufisque a provoqué provoqué la mort de quatre personnes et trois blessés. Selon la RFM, le camion a dérapé après avoir perdu son pneu avant de heurter des véhicules et motos internationales. Six personnes ont été tuées dans des incidents à Khartoum aux abords du sitting quelques heures après l'annonce d'un premier accord sur la transition politique entre les généraux au pouvoir et les leaders de la contestation populaire pour gouverner le Soudan. Et pour finir, parlons musique après Oumi, une chanson dans laquelle il rend hommage à sa mère. Le chanteur Maher Zain revient un mois après avec Laulaka, un titre qui veut dire perdu, chose qui se reflète dans la vidéo montrant des gens qui invoquent et supplient Allah pour remettre dans le droit chemin des personnes qu'ils aiment. Voici un petit extrait de la chanson. peu dessus de la version Wolof. Yéen a King FM 99.4. mbokk yi dal leen nag jàmm ci seen tënkum xibaar dañu koy daal di tàmbali ak mbirum boobu boobule nga xamante ni xaj ba da ko daal di woon màtt foofule ca Pikine Saliou Diouf nag mi nga xamante ne moom moo moom xaj yi nag daal dinañu ko defeere ca parquet ba xaj bi nga xamante ne moom moo di pitbull pitbull bi màtt taalibe boobule nag daal dinañu ko euh, faat nag ak yeneen ñeenti xaj yoo xamante ni kii di Saliou Diouf moom moo ko moomoon ci fàttali rek taalibe boobule nag mi ngi ba léegi ci soins intensifs yi foofule ca l'hôpital ba ki niki démb ci ngoon ab camion bu doon jaar ca pont ba situé foofu le ca poste Thiaroye ci yoonu Rufisque ba nag daal dinay faat lu tollook ñeenti doomi aadama ñett ñi tamit am ay gaañu gaañu yu métti bu nu sukkandikoo rek ci waa RFM camion bi le nag dafa daal di déraper bi nga xamante ne dafa daal di ñakk benn pneu wam daal di mbëkk ay oto ki moto laata nag muy faat doomi adama yooyu le ca bitim réew lu tollook nag juróom benn doomi aadama ñoom ñoo ñakk seen bakkan ci jëm nag ci wàllum sit-in maamoon foofu daal di nañu annoncé nag accord bi njëkk dox nag ci diggante ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk nag takkudeer yi nekk ca pouvoir ba ak leader de la contestation populaire ngir rekk daal di gouverner foofule ca Soudan ngir jeexal rek tënkum xibaar yi ñu waxtaanee wàllu musique bi nga xamante ni génne na woy bi lay ji ummi nekk woy boo xamante ne da ciy delloo njukkal yaayam woykat bi lay di Maher Zain nag daal dinay dellu si benn weer bi nga xamante ni génne na woy boobu indi woy bu bees bu mu dippee lawlaka lawlaka nag moom mooy riir ci yi rek bu nu ko traduire mu nekk loo xamante ni itamit feeñ na bu baax ci vidéo bi nax ñu ngi ci gis ay nit yoo xamante ni ñu ngi ñaan bay jooy ki nga xamante ni moom moo di yàlla ci julli gi ngir mu daal di delloo si ay nit yoo xamante ni ah, dañ leen a bëgg ci eh, yoon bi nga xamante ni moom moo di eh, yoon bu baax bi ñu bàyyi leen rek ngeen teewlu tuuti ci wéy wi تقبلنا بجميل هداك mbokk nag lii la leen indiloon ci seen uh, tënkum xibaar ñu bàyyi leen a wéyal ak équipe matinale bu King FM